والغمم والكروب وتكسر الارزاق وتقضي الحوائج يوم صلى الله عليه وسلم كو ام ايو تي بغ مو فاجو نغا باري لو جولي سي مان ناخ داي جيندي جاخاري داي جيندي جاخلي داي جيندي كارب بي تيك جاخلو دار تي جولي سي مان داي باري لو ورسل تي داي فاج ايو am na benn waay boo xam ne nett li na ne dama amoon dëkkandoo boo xam ne ràbb la daan liggéey ràbb ay sër ak ay yére nee na fa maata fa raaytuhu fil manaami mu faatu ma gis ko ci gént fa qultu lahu maa faala allahu bika waaye yow lu la yàlla def mu ne ma xafara li yàlla baal na ma ne ko fa bi ma zalika waaw yow lu la yàlla baale fa xaala kuntu ida katabtu suma muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fii kitaabin sallaytu alayhi nee na dama daf maa wax ne ma li tax yàlla baal ma bu ma masaan di bind ab téere ba ba bind tur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam damay julli ci moom ci mbind mi doo ko jàll yàlla su borom loolu moo tax mu baal mu ne fa a'taani rabbi maa laa aynun ra'at wala udnun sami'at yàlla jox na lu bët mës a gis jox na lu nopp mës a dégg te nee ci julli yi ma doon julli ci Yonent sallallahu alayhi wa sallam samay bind rek la ma ko yàlla defal yéen ñi miin mbindi Serigne Touba nu ngeen xam ne nu ngeen gisee bindoo Serigne bi ak salaatu alayhi da koo fees dell dell na ñi nga xam ne dañuy tere jàng xasida na ngeen xam ne aw yiw baax la ñuy tere na ngeen xam ne seetaan yi la ñuy liggéeyal ndax kuy tere jàng xasida te jàng xasida julli cont bi la feese ak tàgg yoon sallallahu alayhi wasallam nga xam ne yàlla da koo tàgg julli ci moom sëriñ bi loolu la doon def tàgg yonent ak jullit moom kon ku la tere jàng xasida rek xamal ne mi ngi lay tere yiw bu yaatoo yaatoo yaatu woo war a mën a am yonent bi nee na amul kenn ci yéen koo xam ne yàlla dina nangu ne ngëmam mat na fi léegi làmbut xolam ba yëg ne maa ko gënal boppam ak ndeyam ak baayam ak nit ñi yëpp kon lépp luy tax a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam fexe ba nit ñi def ko farata kon gàmmu lu am solo la bu dul woon dara sax li li li ko sëñ bi tuddee tuhrij yi ta'assub tuhrij yi ta'assub boo ko doon firi ci wolof rek mooy saabu bi raxas di setal gaa yi il si ta'assub mooy mooy def katu bàkkaar nee na gaam moo koy laal ndox mi mi nu teg ci kuréel bi di jàng sëriñ bi nee fa fa suur bu bil mutahari yaa ko fa may tegal mërëmi bu la seytaane la jëlee sa bopp mbaa bu la jëlee ci sa njaboot mbaa bu la jëlee ci sa jëmm ba lu bon rek ngay xalaat moom ngay bëgg a def nee na na nga naan ci ndox mi mooy comprimé médicament biy faj maladie boobu nga xam ne seytaane da koy sotti ci yow ak pexe yi mu lay fexeel. jarul dem ci sëriñu tariyaa mu lay jox xaaw yoo xam ne da koy takk mu lay sonal. jëru dem ci koo xam ne da lay fen ne la seytaane jàpp ne la war a te amul fu jaar ba génne ko ndox min teg fi doon jàngee bi ñuy gàmm Sëriñ Tuubaa nee na day fekk fexam pexam seytaan ku ko ci fexe am ko bu la kenn sono la te ci ngelaw da laa dugg ak nangam ak nangam ah yow boo yow ngeen xam nga lu ko waral benn école su ngeen nee quatre-vingt-dix fenkat seeni fen day niroo moom da ngay dem ci kii mu wax la ko kee wax la ko kee wax la ko nga ne dem naa ci ñu bari diw kii wax na ko kee wax na ko yaakaar ne ci dëgg nga ne jàpp ne da ngaa rey golo te fekk da ngaa daje élèves yu bokk école bu ñu leen jàngale fen xam ngeen ci loolu man damaa mas a gis koo xam ne dafa fekk benn malade benn malade mu seetal malade ba ne te moom nee na tële lay def mu seetal malade ba ne feebar bi dañu wér waaw da feebar te feebar bi dañu wér daal di koy laaj la mu ko laaj laaj ko am xar boo ko jox ko am xar mu rocceeku ñëw ci man billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa ak kaamil bi ma jéem boobu maa ngi fii ba dikkee ni dafa am malade boo xam ne dama ko engage daa feebar nag dama bëggoon mu wér boobu suñ Sadio gi dund ci zaay ma ne ko waaw nga ni da nga engagé am malade bu feebar te da nga ko ne dina wér foo gisee ni day wér mu ne ma tënk ji moo ko ko ma ree yaa ngi dégg fekk billaahi wallaahi tallaahi ci guddi gi guddi gi mu war a ñëw ci man laa génn sama way jur wu góor suñu moom ma fay ñu tàllal nii may jàkkaarloo maa meeloon kenn mu ne dina mel ba may seen waqiit bi seen ñaari kalbu kalbu li ñuy wax xaj ñu buuf ci wet billaahi lazi laa ilaaha illaa boobu maa ngi ma ne ko wax laajoo leen dara mu ne ma laaj naa leen dara ma ne ko demal delloo ko kooku day faatu mu ne ma laaj naa ko ba pare doo fi lekk ma ci am gàcce faw mu wér waaw loolu ma ci dara dundal ak ak ak ak ak ak ray yàllaa koy def waaye nag sañ na laa woon ne diw day faatu keroog dama mujj teg sama loxo ci a ji ma yor ubbi benn couleur ne ko xam nga ne ki ngay wax man xaw xaw ma dëkk gis mu ne waa ma ne ko mbàjj mu mel nii la sàngoo doom ji ma àndal ne ko yaay wax na dëgg ma ne ko demal delloo leen lañ la joxoon mu insisté ma ne ko lenn de laa xam nga dem Touba ci Serigne Saliou moom yàlla rus na ko ndax doomi Sëriñ Tuubaa la soo ko demee ne njëkkantoo mu jox la ak ñaan nga fexe ba balaa àllarba nga ñëw jox ko yàlla mën na la ci rus ba du faat dégg àllarba ne ca lay ko ñaan bi fa mu toog di defaru pour dem lañ ko fekk ne ko ndaw si faatu na leen moo tax il faut ñu bàyyee yàlla yëfu il faut ñu kennal ko xam ne suñu borom rey bu lii di de xam nga ko xamal rek yàlla mën naa xëy wan la yow egsee nga xam lii la itam am soxla dem ci ku baax lii ku baax ku sell mu ñaanal la lu baax la wala nga ne ko ñaanal ma yàlla mu jéggal la dama koy wax taalibe yi lu bari léeg-léeg man ci nit ñi waxtaan man la nag ma ñaanal su moroom jéggal ndax yonent bi sallallahu alayhi wa yi ne leen ci gisee way sul xarit yi na ko wax mu ñaanal la yàlla jéggal la ndax yàlla day nangu am ñaanal kon dem leen ñaanlu ji yonent bi sallallahu ko diglewoon kon ñaan lu bunul dem ci ab fenkat ak ab tappalekat moo ko Sénégal léegi télé boo taal wala rajo boo taal fekk fa fenkat bu mag a mag a mu fay ca télé ba xaalis wala ca rajo ba xaalis ñu jox ko temps d'antenne boo xam ne dañ ko ko jaay te toog këram di seetaan yaakaar ne kii xam-xam bu wér a tax ñu may ko temps d'antenne boobu fekk da koo jënd fay ka koy introsé fay ca télé ba wala ca rajo ba ñu exposé ko la bëgg a wax defal ko ay numéro téléphone dof yëpp dem ca moom mu nax lekk li ñu yor dem tabaxi ab sant wala ab état sam jaaxal il faut ngeen def attention ci loolu bàyyi leen ci xel émission yu bëri yu ngeen gis ñu koy publicité ci télé ñu naan diw sàngam day faj nangam jëlal numéro bi fekk ko barab sàngam nangam ak nangam billaahi wallaahi tallaahi genn wàll gi ay wuyu yu naxaate di lekk xaalisu nit ñi boo yoree lu leer soxlawul ngay dem rajo ba wala télé lu leer li ngay def mooy indi ñi ñëw ci yow. man moom dañ ma ne diw a dafa pour faj waa Sénégal ma gën a feebar li mu yor bu ko mënoon Mali lay toog ñu koy dégg di ko fekk Mali kon buñ buñ ñu nax. il faut ngeen yeewu ci ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daa ñëwoon pour yee nit ñi ci nax yi ngeen nax libéré leen ci ay caaxaan. nan ngay demee ci benn benn waay boo xam ne ab néegam la yor def fa bopp yu dee bëjjël yu dee der yu dee ñàngal néeg ba ba mu ñàng ci mbir yoo xam dafa raar sa bopp psychologiquement boo ko duggee di pat pati te boo demee mu dajalewaat lépp sol ci saako. yéen ngi bàyyi yooyu yëpp c'est faux ay caaxaan la il faut ngeen yeewu am leen tawxiid bu ngeen amee soxla tàllal yàlla loxo yi ñaan ko laa ngeen xool koo xam leer na leen ne am na ragal yàlla ngeen dem tàllal bu ñaanal te pale bi ñu defee métier ba tey ñu bari sonn boo duggee ci réew bi boo duggee ci biir Sénégal lu ko boo dugg boo bàccee fekk fa naxaatekat boo am ne ma nga yor genn mer gàddoom kooku di nax ña léegi dañoo am fit sax ba ba nekk naxaatekat di dem ci rajo ak bi joxe sa numéro pour nit ñëw nga nax leen loolu c'est grave te pourtant nit ñi ñoo fay dem rang def ab rang pourtant ci télé bi laa ko dégg mu wax nangam ak nangam ak nangam du caagi nag ne ku feeñ télé rek dafa jub Hmm? man gis naa koo xam ne bu yàggul sonal la nit ñu bari ci damay faj feebar sàngam damay faj feebar sàngam la jël ci nit ci lekk seen alal te feebar boobu moo rey rek ci bàyyam faw ngeen yeewu nit bu feebaree day day ragal loo ko dem boo ko joxee wér rek dala koy jox ngir bëgg a wér imaginer dem ci rajo télé joxe sa numéro cent personnes wala mille personnes ñëwandoo sa kër ku ci nekk jox la benn mille franc rek wala benn cinq mille franc nga dagg nga dañuy dagg ci kër ku aajo bu fajoo daal ñëw même bu dee ñetti baat nga koy wax am na ci ñoo xam ne jubati nañ ba bàkku làmbaay bi lay la dem di lay ci kopp mi ñuy daggee bant yooyu di ko jox nii ñu nekk ay karamel yu yu di kañal di jël di di di di ji di jàmm ay jamono dañ ci waxtaan bi yàgg mu ne Mbacke léeg-léeg benn foofu de may ko mu lay ci bopp mi tuuti ma ne ko dina rey ñi di su ngeen amee yitte tànnal leen seeni loxo jàpp ba sell toog kennal yàlla ba pare ñaan ko ko boo dajeeg sa mbokkum jullit wax ko sa yitte ne ko ñaanal ma mais kantaa koo xam ne da ngay dem hmm? mu lay gëmloo ay damay luxus xaalis wala damay defar xaalis fay ma nangam ma wax ak rawaan yi ñu génneel la nangam li mu lay wax du su fekkoon lu mu mën la bu yitte woon nga koy fay nangam yéen ngi bàyyi xel loolu faw ngeen yeewu ci loolu yontu salaa daa ñëw pour nit ñi jub ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط yàlla nee na dama yónni yonent yi jox leen téere yi pour nit ñi jaar ci yoon dégg ngeen ngeen bàyyi ko xel mu wéyal tuuti ci julli ci yonent sallallahu alayhi wa sallam boobu ñu doon waxtaan mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam nee ki leen gën a mën a am ak jege ci man yowmal xiyaam mooy ki leen gën a bari lu muy julli ci man lu ngeen gën a bari ak julli ci man seeni soxna gën a bari ca àjjana ak seeni dëkkuwaay loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax loolu moo sabab téere bii borom Dalaa'ilul Xayraat mu bindoon ko dajale ci ay salaatu ala nabi yu raare yu bëree bëree bëri yoo xam ne da koy dégg rek Serigne Touba bi muy bind Jaalibatul Maraaxib dafa ne woon day toppandoo ci bindoon téere bii Dalaa'ilul Xayraat ndax téere bi bi mu ko bindee pour wan ne yàlla da nangu ci darajeetu salaam da ne day seet ndax yàlla nangu na ko mu dem tàmbal ko ci ab teen dem yoon. ba nit moo ko seetee ca teen ba indil ko ko dara sikku ci te boobu mbindum daala nga xam ne li baax li li li ñu baaxoon a gis téere bu tàbbi ci ndox mooy mu yëbbu ba set wecc ndax encre yi boobu tëdd yowoon loolu nangu gi lay teg Sëñ Tuubaa bi mu bindee Jaalibatul Maraagib dane damay toppandoo borom jusul yi ci seet ndax yàlla nangu na ko da ko sànni woon ci géej gi tubaab yi ñoo ko for ñëw jox lii dafa mel yaa ko moom دنجن كن آه، صلاة على النبي بجاهر أما بين صلاة على النبي بنين مين دي بجاهر بري بني وصلاة سعاد موي اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدار ملك الله وبايفا ليبقوا منه xam nga salaatu boobu lan lay wax ci wala yàlla yàlla nga julli ci yonant bi sallallahu alayhi wasallam lim bu tolloog sa xam-xam yow yàlla julli boo xam ne day sax ni sa nguur gi saxe dégg ngeen wax loolu benn julli su ko defee te yàlla nangule ko kon ni mu ko waxee loolu mën naa xeet li xeet yonant bi sallallahu alayhi yëpp te loolu mooy hadis bi ma waxoon léegi ne yonant bi sallallahu nee na ku julli ci man ajjuma téeméeri yoon yowmal xiyaam buy ñëw dana ànd ak leer goo ne bu ñu ko séddale woon bindeef yëpp ñu am ci te du te te des laa ilaha illa allahu du morom ndax moom wax na Seydina Ali ne ko mbooleem li yàlla bind wala mbooleem li existé boo ci génnee jëmmi suñu borom muy asamaan ak li ci ne suñ ko boole woon yonent ya wàllu ya ñëpp ñu teg laa ilaha illallah ci balance teg leen ci balance laa ilaha illallah moo ko gën a diis ko waral laa ilaha wax jëm ci kenn ak yàlla ji waxoon naa leen fii daaw gis ngeen ren li coowul tawhiid ak bokkaale yàlla bari ci réew mi man li ci ëpp yàlla dafa dogal bala ñoo yeewu ci seeni nelaw man lay fekk ma jóg naa gaa yi fële la la gaa yi ab jaam day kennal borom boo wéetee nga xam ne yàllaa la moom boo feebaree nga xam ne yàllaa bëgg feebar bi dal la même bu fekkee diw yéene na la ko ba ni dana ci dox pour mu dal la sax na nga xam ne yàlla la neex mu lay soog a dal wante lu neexut yàlla doo dégg ngeen nga xam ne àdduna yàllaa ko bind yàllaa ko moom bind asamaan si ak suuf si ak li ci diggante bi te mbindeef yi moom ngi leen yàlla moom bokk ko ak kenn mooy boroom ñëpp mooy ki nga xam ne loo fekk fi barab moo fa def mën naa wut nag li ñuy wax waasita utal ko ay sabab mu jaarale ko ci diw mbaa mu jaarale ko ci diw ci misaal boo mbéyoon nit bu lex bi méttee lu waral métti bi mbéy mi ku waral mbéy mi ku bind ki mbéy mbéy mi ndax bu neexuloon yàlla kooku dina juddu ba temps bi muy def mbéy mi ba xel dina ci mbéy mi ba muy mbéy mbéy mi. loolu lañ wax ne iradatullah masalan coobare yàlla bëgg-bëggu yàlla mooy dox ci moom ci baatin ci baatin li yàlla bëgg rek moo am ci baatin laa leen wax waaw waxi waxi ma la ñu wax yàlla am lu yàlla bëggul mu am am bu fekkee yàlla dara mën na koo rëcc ba mën a am te néewu bu ak man sa di lay saya te yàlla dafa man loolu tax sëñ Tuubaa wax ne wa an al asara li rabbina laysa yakunu lil wara war na nit ki gëm ne effet bu mu mën a ci dañu def كطاعة عباد الله أو عكسه كالسعي في المناهي li am su baaxee ba mel ni jaam bu topp yàlla mbaa mu bon ba mel ni jaam bu nekk ci lu yàlla gërëmul na xam ne loolu lépp bi ilmi rabbina mi ngi amee ci xam-xamu yàlla wa bil irada wal qudrati lati turi ifada mi ngi amee ci xam-xamu yàlla ak kàttanu yàlla ak ko bëgg yàlla dégg ngeen li ma koy kon àdduna da ngay la ba yàgg gis ne yàlla dafa ne day li ñuy wax xeexale ay xeexale mbëri bant xam ngeen li ñu daan wax xeexale mbëri bant bi ñu gënee nekk ay xale defar sa ñaari mbëri bant ne dañuy bëri ban mooy daan tontu laa bëgg a jeex na li neex yàlla moo am ci monde ëllëg yombal xiyam tam da ngeen a foogee li ñuy def lépp d' accord waaye ëllëg yombal xiyam li neex yàlla may am de wa yafalu llahu ma yacha la alquran bu coow li bare lépp bër bu pënd birigal yàlla def li ko neex moo tax fii ci àddina faalun li ma yurid ngeen ko gën a xamee yombal xiyam yafalu llahu ma yacha la ñu koy gën a xam ma yacha jooje def fa la fa la ñu yemee bu fekkee maayasa la ca neex yàlla mooy kaca kaca moyukaayu yàlla ma ci yafaalullahu maayasa yàlla daal bind na day texe ëllëg day jékki-jékki rek daal di soppeeku daal di ñëw ni nii dégg nga yafaalullahu maayasa ji bu fekkee koo xam ne da ko fekkoon ca biir gaañay gaañay baax iraadatullaahi nekk ne da koo texee day jékki-jékki rek dëpp hmm? moo tax ñi ngeen gis ñu ne ay taalibey Sëñ Tuubaa lañ woon ba dañoo génn doonatul taalibey Sëñ Tuubaa danoo dem toppi ne ñi ngi ngàññi Sëñ Tuubaa waa wax ju bon jàpp ne dañoo gindiku dañoo déggul xamuñu sax li daw Sëriñ Tuubaa dane li xayri ndaxaa bil muntaqa kullu si saqa wa bihi naxwi saidun wa zutqa ci dara yéen saa salaam yàlla defal na ma képp xam ne daa texee di warta damaa jënd moom feneen la kooku du ànd ak mu dem fudul fudul man waaye nag dafa teg ne wayantu la yàlla defee ñi texe ak ñi ragal yàlla dañuy daw jëm si ci man ñooñu ci man lañu jëm nuuru dafay daal di feeñ ak nuuru jàll am na ñoo xam ne moom yàlla moo bind ne dañuy dem àjjana ak lu mën a def am ñoo xam ne yàlla daal bind ne dañuy dem sawara ak lu mën a def moom ñooñu la yàlla di wax la la du ñu dugg àjjana xataa yële jël jamalu fii samil xiyaat foofu nag ma tekkil leen tuuti rek lu ndaw xataa yële jël jamalu fii samil xiyaat dafa am ñu may dégg ñu koy firi. di ko di ko firee noo xam ne bu ma ko déggee ay reetaan la may def maanaam ñoom ñi nga wax ne <coughs> ñooñu ay yëfar la ñuy wax ne yàlla mi ngi wax ne du ñu dugg àjjana booba tànk gileem mënta dugg ci bët ba dugg suuf donc loolu lañ ko firee bu ma ko déggee damay def ay ree parce que damay xam ne ñu ñàkk a dégg luxatul arab ñooy ñooy wax ban relation la gileem am ak puso firee sëriñ bu koy firee fi lay gileem xajul ci gën gëtu puso ay ree la may def ci laay xamee ku ñàkk niveau mooy wax lu ma arab yi da dul caaxaan dafa am buum gu ñuy wax jamal buum buum gu ñuy wax jamal mooy buum nga wax ne bar ko wolof di wax bar ñiy gas ay teen bokkul ak goj de goj mooy bi ngay jukkee ndox ban mooy bi ngay jukkee bu ñuy gas teen bi di tibb ci biir suuf si ñu koy donkee loolu di ko xëccee muy génn buum googu la ñuy wax ban buum bu dijj dijj lay doon boo demee xoor am na buum yu rëy yu ñuy yeewee bana ci xam nga puso buum googu noonu demee xam nga wëñ googu moom léegi nag buum googu lay wax ne nag hmm? buum googu ni ni ni ni dugg ci bën bënu puso bi ngay ñawee sa tubay ni mu ko tëyee nee na yéefar yi la leen dugg àjjana ñu tëye nga xam ne arab alxuraan ci làngu araab la wàcc yàlla bu demoon bay wax xataa yéen jël jamono bi samil xiyaam ñu yaakaar ne jamal bi tekki gëléem bu boobaa dañuy wax ne yàlla est ce que li muy wax ànd ak xel mais bu la yàlla di wax moo tax man am na ñu ma dégg ñuy woote maarifa ba bi ñu duggee ci firi lu mel noonu firi ko euh, euh, giléem ba léegi bu ma ci xalaatee dafa may jaaxal dafa may jaaxal euh, li ñu wax adamu fahmi lugatil arab ñàkk a dégg langa arab ba di ci wax dégg naa nag ay ay ay ay nit yu bari yuy woote maarifa di ko firee noonu lay lee la ma def kon maarifatu billaahi da duti caaxaan maarifatu billaahi du leçon buñ lay sax yaa ngi dégg du leçon buñ lay sax nga koy mokkal di ko tari ba boo demee da ngay dem ñu ne demal sawaay salakoo nga di ko tari déedéet da ngay ne ci yàlla kennal ko di ko jaamu bari looy tudd yàlla sellal sa digganteeg yàlla ba leeru maarifatu billaahi jaxasoo ak sa damir boo waxee muy feeñ ci sa làmmiñ boo jëfee muy feeñ ci saw jëfin wante du ay texte yu ñu lay bindal nga mokkal ko di ko tari su doonoon ay texte yu ñu bind ñu koy mokkal di ko tari di ngeen dégg téere buñ boo xam ne dafa am ay dar su maarifa yoo xam ne dañ koo bind pour dañ koy mokkal loolu amul maarifatu billaahi mooy xam ci yàlla ñi bàyyi nag dañ naan maarifatu billaahi mooy xam yàlla déedéet yàlla kenn du ko xam xam li nga ci xam mooy li mu jàngal ay yonentam ñu jàngal la ko nga ñëw pratiquer ko leneen lu mu ci doon ay théorie lay doon te maarifatu billaahi daf war a yóbbu ci tawxiid ci kenn yàlla la la war a yóbbu waaye waru laa yóbbu ci dellu ci bokkaal yàlla wala ngay gëm li ñuy wax wahdatul wujuud wahdatul wujuud ku ko gëm rek da bokkaal yàlla wahdatul wujuud mooy ñi dem ba nga xam ne dañ lay jógloo ne yow yàlla nga. parce que yàllaa la sàkk bëgg-bëgg yàllaa tax nga exister d'abord d'accord wante taxul yow nga yàlla bu dee bu dee yow yàlla nga yàlla bi ñu digal nga jaamu ko mooy kat bu dee yow yàlla nga yàlla bi ñu digal nga jaamu ko mooy kat kon lu lu prophète di di wut si ci yow. kon ki nga xam ne li mu lay woowee ne maarifa lay def ci yow fa muy mujj ak yow mooy mu gëm loo ne la monde bi lépp a booloo yàlla kooku erreur bu rëy te loolu mooy wahdatul te majeure partie ñi ma gis ñuy woote maarifa foofu la mujj ak doomu aadama bi leen bi ñu yóbbu dégg ngeen muy ay ay xam-xam yoo xam ne dañuy xam ne yii xam-xam yi leer la yu bàyyeekoo ci yàlla jaamu yàlla ba sa dënn leer te jaamu ko yàlla rekk tax moo koy maye waaye du loo xam ne ay leçon yu lay sax nga nekk di weranteeg say morom naan sa morom yow yàlla fan la féetee mu naan la yàlla amul place nangam nangam loolu du maarifa ay werante la dégg ngeen damay bañ ku leen dugal ci gaamu werante yooyu ay werante rek mais du maarifa su fekkee sa maarifa ci sirku la la jëme sa maarifa amul njëriñ ndax yàlla dafa wax yonti sallallahu alayhi wa sallam la in asrakta la yaxbatanna amaluka soo ma bokkaalee li nga defoon lépp ma ajaloon la ko ci kaw nangul la ko dama koy waddal ci suuf wala di bëggatuma kon lu seen laa ilaaha illallaah ji bari bari lu jaamu ji bari bari su àndee bokkaale yàlla égal zéro yendoo jaamu yàlla suba ba ngoon fanaane koo bokkaale yàlla effacé la nga defoon bukan yàlla seulement ak ñàkk a respecté yoon sallallahu alayhi wa sallam rek mooy loo xam ne day fekk lu baax la nga defoon mu fal nga ñàpp ndax yoon sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa waxoon saxaaba yi ne leen laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون bu leen wax ak yonent bi ca kaw ñi ngeen di waxee ak seen moroom bu ngeen ko defee lu baax li ngeen defoon day mel ni lu jékki ci wax du ngeen ñàkku te du ngeen ko kon ndekete ñàkkee woor na yonent bi sallallahu alayhi day waral sa jëf ju baax yàlla ne effacé na ndekete bokkaale yàlla itam day tax sa jëf ju baax yàlla na ko même yonent sax yàlla nee na mënu leen a baal bokkaale yàlla dani law asraku la xabita anhum ma sanao suñu ma bokkaale woon la ñu lépp wadd ci suuf ma ne bëgg tuub ne yonent bi yow tam nag la in asrakta la yaxabatanna amal boo bokkaale yàlla la nga defoon lépp yow itam Muhammad salaa ku toll ni yonent bi ak fi ko yàlla teg ba boo jullee ci moom mu defal la lii lépp ba noppi ne ko boo ma bokkaalee loo ma mës a jëfal ma sànni ko génn ci bëgg a egg kon beneen sëñ koso walla yooyu sax nga wax kon li nu sëñ Tuubaa jàngaloon muy jëm ci yàlla te tegu ci tawxiid dañ ko war a dañ ko war a respecté sëñ bi nee na ad'u ila ilaahi bi tawxiid damay woote jëme ci yàlla ci kennal yàlla wal fiqhi wa tasawuf majid ak xam-xamu fiqh ak xam-xamu tasawuf bu sell kon tawxiid kennal yàlla la sëñ Tuubaa jiital dégg ngeen saa ne dama len di wax bu len nang muku ñu ne la diw sangam bu da nan nangam nangam amul al ju dëggu jo xamne bu dëggoo ba wer da nan naan diw yàlla la kooku du al ay tapale la dama bëgg ngeen yew am na yo xamne ne du ay al ay caaxaan la dama bëgg ngeen jëfandikoo seen xel yi gis ngeen Serigne Touba dañe suñu borom washad li dahra bi annaka al ahab lii min siwaaka wan nabi baadu ahabu yonent bi salaa salaam sax da koo jox palaasam yemale ko dane yàlla seedeel ma ne yow laa gën a bëgg kuddut yow boo jàllee Muhammad laa ci teg pourtant li ko yonent bi salaa salaam defal mu wax ko mënoon naa tax mu ne bu yàlla ak yonent bi teewoon ma bokk yàlla dem ci te sëñ bi waxee wut noonu leçon sëñ Tuubaa lay jàngale suñ tubaab da ne demal ci demal ci loolu daal di ko fekk wasaare lii yëpp dahra yàlla seedeel na ma faaw ne bi annaka al ahabu yow laa gën a bëgg lii min siwaaka yow laa gën a bëgg ku dul yow wan nabi baadu ahabu boo jàllee Muhammad salaa sallam laa gën a bëgg. leçon boobu mooy bi suñ tubaab jàngale boobu rek leen mooy suñu leçon du leneen jiital yàlla. teg ci Rasulullah salaam salaam teg ci Serigne Touba mbaa beneen Serigne buy sëb Serigne Yaxam mais yàlla yàlla am gi moom bokkoo kenn nguuram gi bokkoo kenn du ndey kenn du bàyyi kenn du maami kenn buur la boo xam ne lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad te loolu nag maa ngi leen di sant bu baax di waaj a jox si karkat yi ñu àggali maa ngi sant bu baax a baax gan yi mboolem ñi teew. yéen ñëpp maa ngi kontaan ci seen teewaay di ci am mbégte bu baax a baax Abdallah tuddal na ma ñëpp may sant ñi nga xam ne dañoo jël seen alal nag def ko ci bis bi jàppaleel ma daal mboolem fu ci waaye nekk te jël sa alal def ko ci jàppaleel ma waa daara ji ci gàmmu rek da nga xam ne sant naa la bu baax Ousmane Mbaye fu mu nekk bu fekkee mu ngi déglu sama kàddu na xam ne sant naa bu baax ndax daf may yónnee ay xéewal yu bare def ko ci gàmmu gi ma jox la ko Abdoulaye nii doomam laa ko joxoon ci gàmmu kon loolu faaw moo fësal cant boobu santaale mbooleem ñi nga xam ne def nañ ko xëy na dinañ ma rendre ñi nga xam ne ñoo ko def ñëpp hmm? waaw kay wax nañ ma ne am na ku tudd Ndiaga moom moo leen jox animation maa ngi koy ñaanal yàlla yokk ko kawel jëf ju ci waaye jëf daal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man dafa fekk ne lu nekk faaw suñ borom wutal ko njiit wante yonent bi sallallahu alayhi bu ko defee dañoo nekk ci am réew te soxla stabilité soxla jàmm ci réew bi soxla dal ci réew mi dal googu bokk na ci li ñu koy may mooy état bi mu dimbali ci ni ñu ci état bi di dimbalee bokk na ci muy mu yokk sécurité ba pare ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi mbaa ñu nekk bitim réew yëkkati kàddu yu mën a taal am réew état xàmmee leen li jëm ci leen rawatina nag ñi nga xam ne ñi ngi ci ginnaaw réseaux sociaux yi di wax ne ahlu sunna lañ ahlu quraan wa sunna ñooy waa alquran waa sunna te te ay groupe lañ créé yoo xam ne jiw ak wax ci kus nit lañ fa nekke ak bonal ay nit yu wax ashadu an laa ñu di leen wooyee ñooñu ay vidéo yu dul jeex def nañ ko ci internet bi di attaqué ñu baax ñi nga xam ne lu de daj nañ ko ci lislaam ba lislaam taxaw faaw ngeen faroo loolu ngeen bàyyi ko xel ay nit lañu yoo xam ne nañuy waxee bu leen ci ñi ci tasu fekkee Sénégal mën naa tax loolu waxoon naa ko maa ngi interpellé état mu bàyyi xel bu baax a baax terroriste bu nekkul ku jëli bomb dong mooy terroriste mais kuy wax kàddu goo xam ne mën naa taal fitna terroriste kàddu gu mën a taal réew képp ku koy yëkkati dañ laa war a tëj kafa kon maa ngi ne nguuru Sénégal na bàyyi xel ñi nga xam ne dañ leen a ngembe ca biti ñu ñëw bonal mbooleem ku fi nekk képp ku nekk ci sa rek ñoom nee nañ ab yéefar nga dangay bokkaale yàlla jàpp nañ ne war a rey loolu garaaw na de ana ci yéen kan moo nanguwul ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah amu ci ñun ñëpp saxiit naa am laa ilaha illallah wa anna muhammadan kan mënu sañoo woy ab yéefar am na ñoo xam ne ñu ngi ci internet bii di mu woy ay yéefar am nañ ci dëkk ci dëkk bi nag ay école ak ay lu ne bu yàggul dégg nga yu ñaaw yi ñu yëkkati jëme ko sëñ Muntaxa xam nañ bu baax ne sëñ Muntaxa day nitu jàmm rek wante ku yilif mbooloo mu toll mooy ku taxaw di ko insulté bu dutoon ak mba ak mbaaxam yow leneen la wax ci yow. na fi koo xam ne ne ba kon nag ñi làqatu ci internet bi ci ay réew di saaga sëriñ bi ak a saaga baax ñi nga xam ne fu mu egg ci diine lislaam ñoo ma bëgg na nguuru Sénégal li jëntin ñu leen ak ambassade réew yi ñu nekk te te lu mën a nekk la ndax làqatu ci barab di saaga kilifa jàmbur su fekkee nit def na ko ci réew am jàmbur dama japp ne sa nguuru réew da la porté wul plainte waaye sa nguuru réew bu la porté plainte ndax da ngay insulte Serigne Touba réew ma nga nekk dana dana def lañ waru def loolu daal maa koy fàttali nguuru Sénégal te yaakaar naa ne président de la république bëgg na jàmmi réew mi ministre de l' bëgg na force ministre de la justice bëgg wax jàmm nag mooy tax jàmm am ci réew ñi dul wax jàmm nag te di ko jëme ci kilifam jàmm ñooñu war nañu wax. léegi nag laay laay laay laay conseil ñëpp mooy alxuraan dafa am lu ñu digaloon jullit ñi bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy wax yéefar yi di ŋàññi seen yàlla yi ay bant la de ak i tabax waaye yàlla dane laa tasubbu aalihatakum fa yasubbu llaaha adwan bi gayri seen yàlla yooyu ñu tabax sax bu leen leen ŋàññi ndax su ngeen leen ŋàññee ñu ŋàññi yàlla ci ci lu dul xam-xam nekkati yëfar yi seen yàlla yañ tabax sax yàlla da doon bañ jullit yi ŋàññi leen nan la ay jullit mën a jóge taxaw ku toll ni Serigne ku toll ni Cheikh Ibrahim Maam Abdoulaye ñi nga xam ne nit ñu baax lañ lu ne daj nañ ko ci diine fu ne samp nañ fa diine ngir mu law amuñu woon lii ñooñee ku mën a taxaw ñëw di leen wax kàddu yu ñaaw aaya alxuraan boobu sax yàlla doon tere yéefar yi jullit ñi pour ñu wax ñu saaga yàlla yéefar yi doon taxaw di ko tuddee ay yàlla segam yi jullit ñi yàlla leen doon tere sax saaga ay bant sàkka saaga say morom jullit te yonent bi salaa salaam ne lépp jullit dafa araam ci ab jullit su xasee seede ne yàlla buur masalan li mu ci jublu jullit bi dereetam araam na ci moroomum jullitam lekk jël alalam te te te néewu ko araam na ci mbokkum jullitam kon kuñ ko jàpp ne nitu tasawuf yi ay muslim kon la lañu wala ay nitu bidaa lañ nga jàpp ne dañ a war a rey sukkandikuwoo ci njàngale bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma tëjee fii benn xadis a ngi nii rek boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ko dégg dafa ne laa tasubbul amwaat fa innahum xad madaw yéen sallallahu alayhi wasallam moo ko wax de bu leen ŋàññi ñi faatu woon ndax ñoom jóge nañ fi ñooñu ñaata nit ci suñ kilifa yi jóge wala ñu ŋàññi di leen wax lu kon ba noppi ne ahlu sunna lañ boo dee ahlu sunna yéen sallallahu alayhi wasallam ngay roy da nga def lu yonent bi di tere yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tere ŋàññi sax ñi faatu woon même bu doon la nga leen wax sax dañ koo defoon te lii wax dafa amul Sëriñ Tuubaa lu nekk daj na ko pour nit ñi nekk ci yàlla. dégg nga lu nekk daj na kon loolu état Sénégal war na cee bàyyi xel renseignement généraux yi déglu sama kàddu nañu jottali loolu nañu ko jottali état Sénégal xam na loolu réew mi dañu fee bëgg jàmm te jàmm jooju fi ñu ngi bàyyi ay nit yoo xam ne dañuy jëli leneen ñëw indi ko fi di ci jaxase réew jàmm dana jafe gënul kon loolu ñoo koy wax président Macky ñoo koy wax le ministre de l'intérieur ñoo koy wax forces armées ak ministre ak ministre de la justice assemblée nationale bi nga xam ne ñoom ñooy def ay tasariyaan yaakaar naa ñaari ñaari ñaari bu nu jàkkaarloo kenn di seen kilifa muy état ka mën bu ne état waxal jàmbul ko te kon ñu ngi ñaan état Sénégal mu taxawaat bu baax a baax a baax ci jëmm yi nga xam ne seen discours yëpp seen xalaat yëpp su joyee réew mi dama tàkk ni yeneen réew yi tàkke woon ñu naan suni di door nañ fii sii di door nañ fii ñee door nañ fee loolu bëgguñu ko Sénégal Sénégal am na diine am nañ diine ba pare kenn du ñu jàngal l'islam ñu bàyyi ko xel ku ci yor sa mu nekk foo xam ne mu ngi ñëw naa la kooka nee na màggal Tuubaa màggal nangam nangam waaye boo nga teel wax ak moom danañ sol ci bopp bi leneen loo xam ne su noppee léegi mu ñëw dana bàyyi yow bu yàgg am na am na fi bokk mu ñuy wax Assane Assane Ndiaye ak Ousseynou kenn ci nuyu dama léegi maa ngi leen di sant seen doom mas naa ñëw ci man ñu nekk ci waajtaayu màggal Touba mu ne ma ki koy jàngal fii da ko de màggal Touba amul benn solo lu ngeen di wuti Touba. man maa yónnee ca Assane wala Ousseynou wax doomam ne ko soo demee neel sa baay sëñ ko soo nee foofu moo fa demaat ndax ka dafa bañ Serigne Touba. bu baax loolu daal mooy kàddu yi kon ñi war a zikar nañ ñëw ñu tàggal maa ngi leen di baalu àq nag bu baax. ndax wax ji gudd na te jëluma woon sax décision wax waaye dama bëgg rek lu dundalee guddi gi lu méngoo ak borom guddi loolu rek laa ci jublu Serigne Baye waxtaan am na solo Pape Sène jërëjëf dégg naa ci yéen bu baax ñu ngi santaan bu baax suñu way bi soxna Ndeye di ko jaajëfal bu baax di sàpp ngeen ñaanalal la ko suñu borom sàmm ko. te yàggal ko fi bu baax di nuyu mbooleem soxna yi ñu àndal suñu ñaari soxna yi soxna Nabou soxna Seynabou ak soxna Mbène mu soxna Aminta ak soxna soxna Awa Diouf soxna wax nañ ma ne nga lool maa ngi lay sant bu baax ci sa taxawaay soxna Ndeye soxna maa ngi lay sant bu baax ci teewaay bi Touba mu ngi sori na marché bu yéen ñëpp maa ngi leen di sant soxna naa ci yéen bu baax waaw yéen moom seen teew ci bâche bi lu lu lu jaadu la ndax seen waajur bu jigéen bi moom mooy fondatrice kon kenn mënu ko fàtte loolu daal mooy kàddu yi maa ngi leen di baalu àq nag di am mbégte bu baax ci diwaan bi ci seen zikar yi ak ñi ngeen koy taxawale kontaan naa lool bi may ñëw yëg naa ne. namoon ngeen sama jëm waaye man it namoon naa seen jëm yëg naa ne am ngeen cofeel ci sama jëm waaye man it am naa cofeel ci seen jëm yàlla na ci yàlla gën a boole soxla yàlla ñu yàlla boole ci ñi muy wax yuhibbuhum wa yuhibbunahu dañuy bëgg yàlla yàlla bëgg leen ñu nekk ci iradatullahi wal himma bu leen am benn tur bu dul nekk ay jullit nekk ay murid bu ngeen amee weneen tur bu mën a doon da ngeen tudd ay bëgg yàlla ndax mooy muridullahi bëgg yàlla lay teg dinaa gis Ibrahima Diouf di ko bind ci bëgg yàlla loolu kontaan naa ci loolu lu ko neex la waaw allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam ñu ngi ñaan réew mi jàmm am fi bu baax a baax dal am fi bu baax a baax élection yi ñuy dëgmal it ngeen ànd ci ak jàmm ak sago ak daal te te te te te te te te ku ci nekk nga jàpp ne que ne. borom doomi réew mi la nga xoolee ko ne sama doomi réew la yéen a ko jaamu te te ñaanal yal nañ ko yàgg def yal nañ ko def ay déwén yu bari noo ngi tawassul ci màggu gi yàlla daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daraje mbooleem yàlla may daraje cëral leen moo leen ñi yàlla bég ci ñoom ci guddi gi ak guddi yi ko jiitu di ñaan yàlla jéggal lu may nu fekk déwén may ñu ay xéewal feebar bi ak jàngoro yi fi ne yëpp mu ko baaxal ñu jubal ñu kontaan naa ci njàng mi bu baax waa Muxlisa bëgg naa ci njàng mi bëgg naa ci zikar si yéen zikarkat yi yoneen Abdallah jottalil ma samay cant ci mbooleem waa diwaan dox fa mu dara ngeen xamal leen ni bëgg naa ci lii allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim damay toog nag déglu zikar si man maa ngi leen di déglu